tiijaan bi mooy toog ni man sama tariqa moo gën ci tariqa yi maa gën murid yi murid yoruñu dara murid yi toog ni ñun ñoo fi gën le suñ a fi gën tiijaan yi yoruñu dara beneen tariqa wax ko beneen tariqa wax ko kañ la jàmm di am ku ci nekk gëmal li nga gëm waaye nag bul weddi mbooleem nitu yàlla yi ku ci nekk nangul ko li muy woote ndax diggante mag ñi ñoom seen diggante rafet na gis nga problème mu Tijaan ak Murit nekkul ci diggante Seydil Hadji Malick ak sëñ Touba du foofu du ndax ñoom ñaar ñoo bokk maam Maaram Mbàkke sëriñ Touba bind ni wa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxiida siwa un intama ila al jaylaani aw intama li ahmad al tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi sëriñ Touba ko bind maam Seydil Hadji Malick feelu ko ni at turuq kulluhum ila arrahmaani muusilatun moo tax may faral di wax ni ñi togg ceeb bi yàquñu ko mais ñi ko tegaat ci gaz bi ñoo ko xëmloo waaye ku ci nekk li nga nekk baax na gëmal li nga gëm mais bul critiquer beneen sëriñ pourquoi man lii laa damay critiquer sëriñu jàmbur koo gis ci àdduna am na kum gëm te koo laal pas-pasam laal xolam koo laal pas-pasam laal xolam na ñépp maandu ci tariqa jàmbur loo xam ci lu baax ci ñoom nga wax ko bul complexe nit du complexe man li ma xam ci cheikhul xadim dontele bokkuma ci tariqaam dama koy wax li ma xam ci Seydina Limaamu dontele bokkuma ci tariqaam dama koy wax li ma xam ci yeneeni sëriñ te bokkuma ak ñoom tariqa dama koy wax kooku moom kenn yilife yilifaale woo ma ko man waxal fii yam fii waxal fii yam fii yàlla bindul nit ku may conditionné noonu amut man ñëpp laa sopp donte la tënku naa nag ci kër Seydil Hadji Malick alaaji Malick ay sama wasila alaaji Malick ay sama soppe alaaji Malick laa yaakaar ci moom laa tënku bu ñëpp indee seeni atte atte Seydil Hadji Malick laay atte woo waaye nag ñëpp laay dëggal ndax loolu la